sànni carte ngay bugg nit nga fal ko nga yaakaar ko oolu ko su waxtu jotee nga génn dem sànnil ko waaye yow su fekkee ne nit ki oolu nga ko yaakaar nga ko nga jël sa carte bi dugal ko si sa ron léeg njegenaay nga toog demuloo sànni loolu amul benn njëriñ te sànni carte lu baax la te pare tamit nañ si ànd respect yow man kii laa farle kale laa farle ki ma farle naa ànd ak moom kale ki mu farle naa ànd ak moom waaye di jamante kàddu di gaaruwante du def loolu amul benn njëriñ kansulo su jotee nañ génn dem sànni nañ dem sànni kansulo suñ soxlaa dara wax ko kansulo kansulo tamit suñ leen sànni ñu taxawal leen ñoom tamit nañ yëg ne nañ xam ne nit ñi ñoo tax ñu toog si seen place bi lu nit ñi soxla ñoom tamit nañ ko nañ daw affaire boobu di ko dimbale nit ñi ñu ngi ni bay gaadin suñ jaxatu yaa ngi nii nopp suñ soble yaa ngi nii suñ batante yaa ngi nii amuñ fuñ ko jaayee te suñ toogee liggéey ñu ne liggéey woon